may sant son excellence le président de la république mi nga xamné ne jël na cër bu mak cër bu reuy jox ko domi Louga li tax mu jox ko domi Louga xamnako DG yaakar ji président am ci yow ba jox le poste bi yalla nañ gis ci yow lu gëna kawé kawe seen njor ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm dama né c'est pas la première fois du da nga xaar ba yor ndomba Dakar dem vraiment DG lay bu di la di wax nga réparation gratuite bi na ko borom bis bi fay na ko borom bis bi fay gis fu su parce que nous li rek la nous avons ñi nga xamné dañuy bayyi seeni kër juroomi fan xam nga lolu dafa metti ci ouvrier ko xamné ne fayu nga damay ci askan paan ci àll tumuranke la boo paanee benn minute rek gisoo ku la dépanner rek tumuranke la te lii ñuy def jaamu yàlla mënu koo weesu en tout cas ñi ngi la leen di dénk di la dénk suñ bopp di dénkootim président de la république mu gën a jàppale ndaw yi nga xam ne ñu ngi fii ci Louga nekk ci secteur bi te ci yëngatu vraiment ñi ngi ànd ak yow di la accompagner di la jàppale di la sant di la gërëm au nom de tous les artisans de la région tous les artisans de la région là, parce que Bad bi c'est la ca maa ko yore vraiment nous sommes lay train bu baax di la gërëm di aussi une bonne continuation ci li nga xam la président mouvement valeur nous avons rencontré le regroupement des vrais artisans de l'automobile je pense du Sénégal muy Revas euh, au nom de son excellence monsieur le président de la République ginnaw biñu action de dépannage yi ngeen remettre un appui financier 2 millions de francs CFA pour dimbali leen sen dem ak sen dik ndax li ngeen def dafa am Mauritanie Touba ko en charge au nom du président de la République aussi jël en location un bus climatisé boo xam ne il sera très mobile def ci carburant jox ci chauffeur boo xam ne yéen da ngeen fi nekk sax di dawal artisan yi nag mécaniciens yi la tôliers yi soudeurs yi électriciens yi bref corps de métier yëpp man nag ma xamante ak ñoom bu baax di nit ñoo xam ne démb ak bërki démb dañ ñu jàppale ci liggéey bi ñu defal son excellence monsieur le président de la république du Sénégal ñuy lancer un appel à tous les Lougatois à tous les Sénégalais pour ñom ñëpp ñu japp ci tool bi nga xamné dañ koy bay muy le champ de l'émergence au premier chef le président de la république jiite ko muy Sénégal wara mëna jëm kanam ñu leen xamal ne président bàyyi na leen xel yeen artisans yi ndax ay jambar ngeen ñi ngi fédéli suñu coloré mouvement valeur aussi mi ngi leen di remercier ndax ñu ci ëpp ci yeen dañoo bokk ci mouvement bi ñi ngi dal di leen di remercier suma limé rek damay juum kuma ci xol rek amna luma lu ak yow waaye yeen ñëpp considérez que je vous aime je vous respecte et je serai votre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République.